mooy désencombré Padois ba campénal pavé def ay lamp je l'ai fait des nak moy def suivi désencombrement bi dindi ko nit ñi mbedd bu féex. non kontu ñu aménager fenn ben ambulant bi mi lal fi tàgg wu ñu jox ñuko place mais li leen proposer moy nañu créer ay foire tournante dans Grand Yoff Grand Yoff yaatuna ñu xol ñu organiser wu féké fekkee bëgg nañ liggéey bëgg nañ am jamm ñu ay foire tournante voilà man ma accompagner leen loolu moy sama proposition somation bi jox jox nañ ay sommation jox nañ leen sommation depuis 2 avril ne leen le 13 avril nañ dem comme daa amoon korité ñu bëggoon ñu jaay si korité gi ba korité gi passé bi le 13 passé ñu bàyyi ba le 17 aussi ñu doog a voilà mais je suis désolé li ma gis fii démb moom vraiment tout, mais je pense que erreur la woon rek donc dañuy continuer liggéey bi pour au moins nous ñu bëgg ñu am ko mooy Grand Yoff bu set. non dañuy tooñ nguur gu bees dañuy tooñ président Diomaye ak ministre de la Présidence. ñoom yëguñu opération yi féké wuñu ko digaluñu ko wax dëgg yalla buñ leen togn waaw donc li am ni sama responsabilité en tant que maire responsable état bi nekkuti bu ci dugal té def ni moy may lay def. xam nga juuti mom taxe journalière la eu tégué rek yow si bi rek di jaay nga wara fay mais kenn fayul occupation voie publique bo moy taxe bi ñuy fay mensuellement ba légui kenn fayul taxe bobu mais juuti c'est une taxe journalière même maire bi jaay caaf daa war a fay juuti boo tegee rek di jaay nga fay juuti juuti cent cent cinquante francs je pense loolu la quoi mais kenn fayu li gëraawoon mooy ñu daggaleen ay place ñuy fay à part Korité kenn ñu dagal kenn